الحمد لله القائل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu boroom subhanahu wa taala moom mi ñu wax ci alquran fi mu waxeeg ñun ni walillahi ala annaasi xijju lbayt man istataa ilayhi sabila mu ni faratal ci ñun ci ñun waral na ci nit ñi ni ñu dem aji ji màkka benn yoon ci sa dund ci soo ko mënee ñu ngi koy sant moom yàlla suñu borom subhanahu wa taala di ko dimbali ko di ko ñaan mu jéggal ñu suñuy bàkkaar moom mi nga xamante ni képp ku mu jubal amul kenn ku la jàddile ci yoon waaye képp ku mu seetaan ci maandu téem ba nga réer amul kenn ku la mën a gindi yàlla ñu yàlla gindi di seede ne amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg gudul moom subhanahu wa taala bokkaale ñeelu ko di seede ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la yàlla nañ ko yàlla fayal moom ak i saxaabaam ak képp ku topp njubu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa yàlla suñu borom di doon suufam si ñu ñëwaat suñu xutbay tey mbokk yi di dénk suñu bopp di leen dénk ragal yàlla di ko sof ci xutba bi ñu weesu ñuy wax ci jaamu yàlla bu màgg bi nekk suñu kanam di benn ci ponk islaam yi juróom muy alxajj ñu waxoon ci li nga xamante ne moom mooy arkaan ya muy ponk ya ponk yi nga xamante ne boo ca bàyyee rek sa aj matul waxaat ci tamit li nga xamante ne moo nekkoon waajibaat ya wareef ya boo ajee yooyu daf lay war boo ko defulee da nga cay tuur deret ñu waxoon ne suñu xutbay tey dina ñëw ci yeneen i tomb yu soxal lii di aj mooy anwaul xajji mooy xeetu aj yi nga xamante ni moo am benn bu nekk nag borom xam-xam yépp dëppoo nañ ci ni yu wér la bu ci waay def rek wér na anwaul xajji yi mën nañ ci lim xajjul ifraad mooy aj bi ngay def muy aju kese bu àndul ak umra wa xajjul qiiraan mooy aj bi ngay lëkkale ak umra te doo leen séparé wa xajju tamattu mooy aj bi ngay def mu ànd ak umra waaye da nga leen di séparé bi ci njëkk muy xajjul ifraad moom ay xutuwaatam mooy étape yi nga xamante ni ki tànn ifraat moom la war a def moom la ñuy lim ginnaaw bi nga xamante ni li ciy sunna ci moom njëkk mooy mu wat lépp lu mu soxla ci karawam moo xam karaw yu mustaas la wala karaw yu puqataan wala karaw yu naq bu dee sikkim nag moom sunnaa luñ ko mu laal ko dagg ay wewam sangu set laal parfum ci yaramam waaye du ko laal ci kaw ci kaw armal gi li muy laxasoo bu dee góor maanaam bu dee góor li muy woddoo la ak li muy làmbaayoo ci kaw bu dee jigéen nag lu mu sol baax na ki xarmal ba tey du sol bu dee góor lu ñu ñëw loolu waxoon nañ ko ci xutba bi passé du jiital tamit ñaar yooyu dong moo koy wër mooy li muy woddoo ak li muy làmbaayoo moom bu ñëwee ba ci miiqaat bi bu dee waa Madina ñu jóge Madina jëm Makka Zul Xulayfa ñu koy wax abaaru aliyin foofu ngay wàcc ngir dugal sa yéene kii def ifraat bu duggee ci jàkka jooju nekk ci Zul Xulayfa day julli ñaari rakka rakka bu nekk fatiha ak qul ya ayyuhal kaafiruun bi ci topp fatihatul kitaab wal ixlaas mooy qul huwa allahu ahad su ca noppee li muy wax muy yéeneem du ko wax ci xolam ca kaw la koy wax mooy labbayka allahumma xajjan kaddu gi lay wax mooy yàlla wuyus naa la ci aj ndax moom aj dong la tànn su fa jógee nag war a jëm ca waruwaayam alayhi salaatu wasalaam na mu ko defee woon moom ba mu nee nañ ba mu yéegee ci kaw xaswaa ca gëlëm ga ca la tàmbalee wax labbayka allahumma labbayk labbayka la sharika laka labbayk inna alhamda wannicmata laka walmulk la sharika lak waaye ku ko tàmbalee wax it ci bi nga génne ci jàkk ji jëm ci waruwaay ba baax na waaye lii la ko yoon saa salaam jàngale bu ko defee yow sa yéene aj ci ifraat dugg na te muy sa ponk bu njëkk nga dëgmal nag te nga xam ne makkatal mukarram waaye boo jëmee makka nekkul directement ca kaaba nga jëm waaye sa hôtel ngay wàcc ji kon bu dee da nga egg guddi wàcc sa hôtel ba xëy suba da nga yeesalaat sa njàpp sàmmoon teg nag lépp loo xamante ne armal gi a koy tere a ko def fexe it ba lépp luy rafas ak fusuuq al jidaal moom da nga cay génn mooy wax lu sa yoon nekkul ay jëw ak ay waxil àdduna yépp da nga koy bàyyi ndax yaa ngi ci armal bi soo xëyee suba la ngay defi ji ca kaaba ga moom mooy tawaaful qudum yow mi def ifraat maa ngi ci ifraat tawaaful qudum mooy nuyu ji ngay nuyu ji kaaba gi boo ñëwee te ngay tàmbalee sa tawaaf mooy ci xajarul aswad ngay jàkkaarloog moom ni bismillah allahu akbar tàmbalee wër yow mi def tawaaful qudum ci sa ifraat sunnal nañ nga ram la mooy nga daw ñetti tuur yu njëkk yi nga koy ñukki ñukki waaye du doon lu yomb ci aj ndax dafay xat boo ko defee mën ngaa lor te dañ koy tere ci aj kon mën ngaa dox sunnal nañ tamit topp nañ nga dindi sa mbagg ndey joor bu dee góor ci ñetti tuur yi bu ko weesoo nga muuraat sa mbagg continuer def sa quatre tuur yi des muy sa sept tuur tuur yi ngay def yëpp saay boo egsi waatee ci xajarul aswad doo wax bismillah allahu akbar waaye allahu akbar rek ngay wax continuer bu sa tawaaf matee nga julli sa ñaari rakka muy sunnay tawaaf bi ci ginnaaw maqaamu ibrahim su dee ni xatul su xatee foo ko defee ci biir xaram bi baax na nga julli fa sa ñaari rakka qul ya ayyuhal kafirun ak fatiha ci premier rakka bi deuxième rakka ak fatiha ak qul huwa allahu ahad soo ca noppee yow mi def ifraat su la neexee nga dem soo ñëwaatee ci bisu tabaski bi nga daw safa ak marwa waaye ci bisu tabaski ba day xat nga def ko ci jour boobu nga ñëw def tawaaful qudum mooy li gën ndax dina fekk mu féex nga dugg def safa ak marwa bu fekkente ni mën nga aaya bi nga jàng ko inna safa wal marwata min sha'airi llah faman hajja al bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima faman tatawwa xayran fa inna allaha shakirun alim soo ko mënee jàng jàng ko soo ko mënul jàng nga dugg dem safa te jabalu safa buñ koy wax da nga jàpp ni ab montagne bu naqare yéeg la waaye dañ koo liggéey ba mu nekk tunnel boo xam daanaka boo yéeg ci kaw safa doo ko yëg boo ñëwee ba ci kaw safa da ngay tourné jàkkaarloo ak kaaba gi ndax nga koy tiim nga ni allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu almulk wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir لا إله إلا الله وحده أنجز عبده ونصر أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده taxaw ñaan ginnaaw kàddu yi da ngay taxaw ñaan ñaan ñaan ñaan sa soxlay àdduna ak Allah soo ca noppee nga baamu waat ko ñaan gi taxawaat ñaan ñaan ñaan ba mu ñetti yoon nga soog tàmbali jóge Safa jëm Marwa boo jógee safa jëm marwa am na fu ñuy wax almiilayni lampe bu verte la boo xam ne booy teen da nga koy seen nii fa lampe ba tàmbalee ca ngay tàmbalee di ñukki ñukki ngay daw bu dee góor bu dee jigéen day continuer dox boo dawee ba fa lampe ba yam fa ngay continuer dox jëm marwa boo demee ba marwa am nga benn tuur waxoon nañ ni ñuy wàññee fekk tuur yi noonu nga koy defee boo ñëwaatee ba tey ci safa ñaan gu ngay ñaan ba ba say umba ba sa sa safa ak marwa di jeex kon ci safa ak marwa la fa am mooy zikr mooy tudd yàlla ak ay ñaan ak daw ci diggante mi lay nii bu loolu jeexee yow mi defoon ifraat wareef bi mu nekkoon ci yow daw safa ak marwa wàcc na la boo ñëwee ci fukkeelu fan ba doo ko def bu ko defee nag ci ngay delluwaat sa hôtel xaar huitième jour huitième jour bi ñu waxee yoon saa am ne ko yasalunaka anil ahilla yàlla fi ko qul hiya mawaqidu nnaas dinañ la laaj ci lu jëm ci wàllum weer waaye wax leen ni loolu lu ñuy xamtu la weeru koor ak weeru aj dañ koy séntu ba gis ko boo ko gisee rek tàmbalil wàññi sa benn fan ci weeru dul xijj niñ koy wàññee ba egg ci huitième jour bi ci ngay jóge foofu nga xamante ne mooy makka jëm mun na boo ñëwee mun na tisbaar bu la fa fekkee ñaari rakk nga koy julli da nga koy wàññi waaye doo ko boole tàkkusaan su tàkkusaan jotee nga julli waat tàkkusaan waaye ñaari rakk lay nekk timis bu jotee ñetti rakka yi timis nga julli timis kenn du ko wàññi bu gee jotee nga julli ñaari rakka yi gee nga wàññi ko bu ko defee salaatu rubaaya mooy julli yi ngay julli mu nekkoon ñeent ñeent muy tisbaar tàkkusaan ak gee moom ñaar ñaan koy julli da nga leen di wàññi waaye doo leen boole fa ngay fanaan ca mun na ba xëy la lan demee mu war a nekk neuvième jour di bisu taxawaayu arafa soo mënee génn nag ci diggante tisbaar bi maanaam yoor yoor egg arafa tisbaar mooy la gën noonu la ko yoon saa sallam defee woon boo ñëwee ba ci arafa arafa bisub ñaan la dinañ ci ñëw ci lu gën a yaatu insha allah ci xutba yi ñëw wante boo xasee ba dugg ci bëccëg boobu ci arafa waradoo faa génn ba timis di weesu nga soog faa génn foofi tisbaar ak takkusaan ñoom ñaar ngay wàññi boole leen ci tisbaar bi kon tàkkusaan doo ko julli timis fa la lay fekk waaye doo ko julli bu weesoo ci la oto yi tàmbalee ramassé jëmale musdalifa jëmale musdalifa ki ñëw nag arafa ci guddi gi moom mën na fa dugg rek dem waaye ki fa ñëw ci bëccëg bu fa ñëwee ci bëccëg gi rek daal di génn na ma dem musdalifa ci coobareem kooku day tuur deret waxoon nañ ko ci xutba yu paase bu ko defee wàcc bi ngay wàcc musdalifa ci ginnaaw timis lay nekk nga toog fa julli fa timis ak gée da nga leen di boole waaye da ngay wàññi gée gi ñaar rakk lay doon tamit nga for fa ay xeer xeer yaa ngi fay for day tolloog lu toll ni ay égaat bu mu tuuti waaye bu mu rëy lu tolloog soixante-dix prière pierre nga fay ut soixante-dix boo ko mënee ëppal na moo gën ndax bu fekkee say xeer dafa manqué wut quatre-vingts moo gën bu ko defee nag fa ngay toog ba guddi gi xaaj mooy li gën bu dee ko am kàttan la bu dee ko amul kàttan muy ko màgget wala jigéen wala ko feebar mën na faa jóge moom continuer dem mun na waaye yow mi dara jotul da ngay def ni alayhi salaatu wasalaam defoon mooy fanaan fa la fa ne nag mbokk yi du ay ay bâtiment waa ay tente ay fa ngay foree xeere noonu noonu la bërëb ba mel bu ko defee bokkoon na ci bagage yi ñu la waxoon ni booy dem mun naa nga yóbbaale ko mooy ab sijaada boo xamante ni ci jamono yi diñ ko mën a lal wéer fa sa ginnaaw ndax la lay xaar ci ëllëg sa muy bisu tabaski liggéey bu bari la nga toog Musdalifa ba guddi gi xaaj bu réew mi am kàttan boo fa mënee toog nag ba julli fa suba ba mu commencé naaj nga taxaw ñaan ñaan say soxla soog faa jóge dem te nga xam te ne moom mooy ca jamra al aqaba al kubra mooy juróom ñaari xeer yi ngay sànni ci bisub tabaski ci kay di ifraat laa nekk ba tey boo sànnee say juróom ñaari xeer ca mbalka wu mag ba te léegi balisé nañ ko ba nga xamante ni yow doo jaawale di sànni ci beneen mbalka directement ngay jëm foofu sànni say juróom-ñaari xeer boo koy sànni nag da ngay wax bismillah allahu akbar jëlaat benn allahu akbar jëlaat benn allahu akbar ba say juróom-ñaari xeer nag nga déplacé wu boo téenee am na benn panneau bu ñuy bind xibla foofu ngay jàkkaarloo ñaan ñaan ñaan soog faa jóge nag jëm makka pour def ji sa tawaaful ifaada tawaaful ifaada bi ngay def ci bisu tabaski bi yow mi def ifraat boo ca noppee doo dafaat safa ak marwa ndax defoon nga ko ci tawaaful qudum bi soo noppee ci loolu lenn moo lay defee mooy boo delloo mun naa makka kenn du fa fanaan boo defee tawaaful ifaada pare kenn du fa fanaan ñëpp mun naa la ñuy dellu ngir sànni ji 63 prières prières yi la defee 70 nga faroon ca jamra sànni set mu defee la 63 63 yi da ngay delluwaat ca mun na ñaari fan nga fay def fa man taajjala fi yawmayni fala isma alayhi wa man taaxara fala isma alayhi liman ittaqa la yàlla wax boo fa defee ñaari fan ca mun na gannaaw bisu tabaski bi nee na baax na boo fa defee ñetti fan nag ba tey baax na waaye bis bu ne ca bis ya ngay def ca mun na da ngay dem sànni ji ay jamra foofu lu ñu bëri di juume jàpp ni jamra bañ sànni woon jamra yi jeex na am defe ne ay jamra mooy ñetti fan ginnaaw tabaski wala ñaari fan mbalka bu ndaw ba di nga fa sànni ñetti xeer afwan juróom ñaari xeer bi ci digg bi nga sànni fa juróom-ñaar ba ca toppaat muy bu mag ba nga sànni juróom-ñaar bu ci nekk day ànd ak la ñu waxoon ca bañuy sànni jamra wetu ñaan bul yàkkamti nag ndax foofu it boo xasee ba fa jàkkool mbaw malka ba ba nga sànni say xeer te sànni ya bul sori bay sànni di sikki sàkk ni dugg na wala duggul waaye bu ko jegee it mel ni ba leen lu ko ciy sotti waaye na nga ko sànni boo pare génn ci mbooloo mi wetu ñaan jàkkaalu xibla ñaan ñaan ñaan ñaan soog a demaat ci mbalka ba nekk ci digg ba boo fa jógee nga dem ci bi nga xamante ne moo nekk jamra al aqaba al kubra nga sànni waat say juróom-ñaar soo fa jógee delluwaat sa fi nga xam ne moo nekk sa tànt ba nga xaar sa ñaareelu fan def ko ñaari fan minimum ñetti fan maximum bu ko defee nag la lay dese ci aj bi mooy tawaafu tàggatoo yow mi nga xam ne dañaa def ifraat aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala julli di selmal ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñëwaat kon ci ñaareelu façon bi nga xamante ni ujaat bi war na ko tànn ci aj bi mu war a aj ca miiqaat bi ñuy wax léegi moom mooy xajjul qiraan ki jël aj ak umra lëkkale leen te du leen séparé kooku bu ñëwee ci miqaat bi comme la ko defoon ifraat la mu def noonu lay def te na mu war a mel su paree la muy wax ci yéen mooy labbayk allahumma umratan wa xajjan labbayk allahumma xajjan wa umratan yow yàlla wuyus naa ci aj ak umra boo xam ne du ko séparé moom ci def qiraan moom it ginnaaw li mu wax noonu day def ka defoon ifraat la mu def mooy di labbayka jëm ca kaar ba noonu tamit lay demee ba ca tawaaful quduum da koy def ifraat defoon moom it da koy def fi waaye bu ko defee ba noppi ba julli ci ginnaaw maqaami ibrahim daw gi muy def moom tamit sawaaf marwa day tax bu ñëwaatee ci jour tawaaful ifaada du daw safaak marwa moom mi ko def xiraat waaye moom moo koy def ifraat ñoo bokk ci seeni armal du ñu summeeku seen armal ba tey dañuy defat seen armal ndax seen aj jeexagul bu ko defee moom it ci huitième jour bi bu delloo ci hôtel bi huitième jour noonu lay jóge dem mun na comme que defoon ifraat la mu def su fa jógee dem arafa comme que defoon ifraat na mu def bu fa jógee noonu lay demee musdalifa for xeer yi ko defoon ifraat ya mu xeer ya mu for su fa jógee noonu lay sànni ci jamra al aqaba al ula mooy juróom-ñaar yi ngay sànni ci bisu tabaski bi waaye moom ki def xiraan fa lay tuure deret différence am ak ki def ifraat rend gi nag nekkul da ngay dem jënd nii rendil ko sa bopp waaye tikke la yooyu jënd rek ci mbay bi buy wane ni bu heure ba jotee dinañ la ko defal sa fay jóge moom it ci def xiiraan dem ca Makka pour def tawaaful ifaada muy ponk tamit ci ponk yi comme ki def ifraat nam ko defee woon bu fa jógee ci tawaaful ifaada bi moom du dawaat safa ak marwa ndax defoon na ko ci tawaaful qudum ba su ko defuloon ci tawaaful qudum ba nag da ngay def ci tawaaful ifaada bi su fa noppee soog a delluwaat mun na def fa fan ya ka def ifraat di def sànni jamra comme nay tey di sànnee jamra ka defa ifraat moom it la koy dese moom mooy tawaaful widaa moom mooy aju tàggatoo mooy tawaafu tàggatoo ki def xiiraan moom nii lay defee xutuwaat yi lay jaar pour def loolu lii di ajam kii def tamattu nag muy bi mujj moom dafa waxoon ci miiqaat bi ni labbayka allahumma umratan umratan mutamattian biha ila alhajj yàlla wis naa la ci umra gu ànd ak aj gundul boole moom bu ñëwee ci miiqaat bi lii lay wax ànd ak ña defoon ña def yéene ifraad ak xiiraan ñëpp di labbayka jëm ca kaar ba moom it bu ñëwee ba Makka war a def ci tawaaful qudum moom du tudd tawaaful qudum ci moom tawaaful umra lay nekk bu ko defee bu defee tawaaf bi julli ñaari rakka ci ginnaaw maqaam Ibrahim daw Safa ak Marwa daw Safa ak Marwa bi muy daw moom daw Safa ak Marwa umraam la su ca noppee moom mun naa watu dindi armalam sol yeneen yére yu normal dem toog ci otelam ndax umra la yéene ak aj gundul taqale kon pare na ci umraan su huitième jour jotee huitième jour am ci lay armalaat ni labbayka allahuma xajjan aja ko defe daal di ànd ak ka defoon xiiraan ak ka defoon ka defoon xiiraan lay àndal ci lépp la muy def nag moom mooy day aj jëm ca mun na jóge fa dem arafa jóge fa dem muzdalifa jóge muzdalifa dem jànni sànni jamra aqaba al